pour méttital ko waaye li ci ëpp la majorité. bu ragal de yow bu nga taxaw bu ragal de. <laughs> man mii yaa sama papa tey xam te ne avantage bi yëpp suñu ne leen bienfait ci biir polygamie góor yee tax yoo ko moom yow loolu loo ci wax. Hmm? zéro stress pour vous. merci beaucoup madame Diop. Mm-hmm. Mm-hmm. déjà da nga jëkk laaj sa thème. ne bienfait. wala stress. waaw yéen moom bienfait. li tax ma lay wax bienfait. Mm. d'abord yàllaa ko digle mhm. yàlla moo ñu jox ñun ñun góor ñu am droit am ñeenti jabar mhm. yàlla digalul doomu aadama lu koy lor terewu ko lu koy jariñ boo ko xamee nga wax ma ko mhm. beneen bi ci topp mooy yàlla lu gën a fonk julli ci la bokk d'accord nga ak man amul benn bu ci commencé benn rakk ñaar rek ba ñeent <laughs> quand ça vous arrange. mu ngi rey kay mu ngi rey oui. ah ñu loolu kay li ma kay wér la. julli yàlla bi mu koy joxe sax dañ koo fekk. Mm-hmm. pour mu joxe ko. benn commencé wu ci benn rakk. Mm-hmm. yépp mooy naafila sax ñaari rakk ngay commencé. Mm-hmm. ba ci ñeent. safa bi tam mu ñett nga tëj. waaw ok. léegi nag mu des naa li nga wax ne euh, góor ñi. ma lay wax ne la gis nga problème yi ngeen am yéen jigéen ñi. Mm. tant que attaqué wu leen les vraies di wut àll bi si góor ñi seeni problème du gaaw a lijjanti ko hmm. li tax ma wax ko mooy da nga ne góor ñi doy jeng def nii def naa mais góor bu takkee jabar balaa même euh, bu ñu takkee tàkkusaan fa la problème bi fa lay commencé avant même muy jeng ñu ngi wax kan moo koy annoncé aaw bi hmm. kan ma kan lañ yónni ci aaw bi pour mu wax ne ko Prospère takk na ñaareel. lu metti la moo tax. <laughs> non waxuma metti bi dama ne balaa moom balaa Prospère am occasion wu jeng sax problème bi mi ngi commencé bu ñu génnee jàkka ja kan moo koy annoncé kan koy annoncé kan moo koy annoncé Fama. dëgg la <laughs> ah kon fa la problème bi commencé avant jeng même di commencé. dëgg la lu ko waral. parce que yéen jigéen dafa am lu ngeen di fàtte. lan merci beaucoup gis ki nekk ñaareel. Hmm. kii nekk ñetteel. ki nekk ñeenteel. c'est des femmes qui ont droit au mariage. absolument. donc yéen seen droit de la femme yépp sëy bokku ci. te bu ngeen jógee di xeex ak seen moroomu jigéen ñi droit si si droit cela droit yéen droit yi ngeen ay mooy prospère xaata na jabaram prospère euh, wéqat na jabaram prospère jàdd na jabaram rek ñu association yi jóg di def ay marché yu ma xamul mm. mais war a nekk ñaareel war a nekk ñetteel mm. war a nekk ñetteel c'est une femme qui a droit au mariage mm-hmm. et qui a le mm-hmm. droit bi nga am yow ba nekk aaw nga xañ ko yow kii am droit moom war a nekk ñaareel war a nekk ñetteel wala nekk ñeenteel tout mm. le problème se situe là le droit au mariage. Mm-hmm. n'est-ce alors bu loolu passé. Mm-hmm. Euh, gis nga sànq soxna faa euh, euh, Ndeye Fatou wax na ko. Mm-hmm. il faut d'abord nga xam lan mooy sëy. surtout parce que sëy yéen jàppewu leen ko jaamu yàlla. yéen li ngeen ko jàppee yéen jigéen ñi mooy heure ménage. seen façon yooyu ngeen def noonu décorer xaw ma ne def Mrs Mrs Seck wala Mrs Diop wala Mrs Nangam pour yéen foofu jeex na. sàngoo kol waa kay sàngoo kol daan nañ wéraxle nag ne kew keewaaral nag mel ne mooy loolu alors que il faut ngeen partir d' abord que ne jaamu yàlla la. dès l'instant mu am jaamu yàlla dafa am yoo xam ne daf ciy mën a ñàkk. Mm-hmm. troisième point bi mooy faama gisuloo ba tàyyi madame Diop ñaari ñaari way denc ñaari euh, wujj. yu mel ne mburoog soow. Mm-hmm. seen moroomu jigéen yi wër leen yéen moom la période doon wax sànq ak entourage ah yow kii ni nga kii moom yéenay dem marché yéenay def nii bu la toggalee nga lekk bu la joxee nga naan mm. yow daal yow daal mais yow de aayaa ah, wujj moom wujj rek la mm. yéen seen bopp yéenay compliqué situation yi da ngeen gis ñu mel ne yow tamit léeg-léeg lu nu fanaanee fii dem nettali ko kële <laughs> am na barke borom Touba. di fen soo tëddee ak kee wax ko <laughs> na. amul loolu dinaa si ñëw. ok loolu loolu dinaa si ñëw. te loolu yëngal kër yi. donc loolu déjà day nekk problème ci yéen. yaa ngi dégg. ñaari jigéeni jigéeni Sénégal. ñaar ñu bokk jëkkër. Hmm. mel ne bu roog sow la bañ a gis. il faut que mu am jigéen bu ci dugg. defal nii defel naa lu tax nga koy def nii lu tax nga koy gunge fii lu tax mu la jox lii lu tax mu la jox ngay lekk lu tax mu la jox soow ngay naan lu tax muy def nangam lu tax muy nangam ba seytaane dugg seen diggante féewaloo am beneen nag bi nga xam ne nag moo gën a garaaw faama nga xam ne tey ji da doon da doon régler problème yëpp mm. loolu xam naa bu ma ko waxee sax jigéen ñi dañuy xam fii ci plateau bi ah. non c'est vrai mm. loolu lan la mais faama yow mën ngaa am euh, madame Diop xarit mm-hmm. ngay revendiquer seen amitié yéen ñëpp ne kii sama xarit la. Mm-hmm. yàlla dogal mu yéex a sëy dem ba am 30 ans 35 ans. <laughs> mosul dégg alxayri. sa xarit la. waaw jàmm de. <laughs> léegi waxul jàmm de. ah déet ah, muñ léegi ah mais na a xam ne moo tax su muy wax naan jigéen ñi xelam sëggee ñi <laughs> weenam sëggee gis nga avant may wax. xam nañ la may wax. mën nañ maa jaay. jël sama xaalis. loolu leer na taalal ma si attaaya ma jox may naan. jox ma ah. wecc te du ma xam ne jaay nañ ma. <laughs> li ma bëgg wax mooy femme buy revendiquer. une amitié de vingt cinq ans. une amitié de trente ans ne kii sama xarit la. Mm. ku ne femme kuy sa xarit nga ne diw. yàlla natt ko ci natt bu toll ne mu toog trente cinq ans trente deux ans amul jëkkër. waaw femme doo waxtaan sa sa sa sa alaaji mu jël ko ñaareel. Oh. ani xarit booba. xaritoo bokkul. ah lu ci lu ci ma xamul tax ma ñaar ñu xaritoo 30 eh, ans yaakaaroon ne François bi daa volé. leen ma ñëw rek xaar leen ma ñëw. non c'est impossible ñaar ñu xaritoo 30 ans. Eh, c'est impossible bu yàlla dogalee sa borom kër jël ko wujje boobu ah, bu amitié bi continuer animosité bu nu fa am. Mm, mm. tey jii yow ma yaakaar ne plaisir la. Mm. ma ne ma yaakaar ne plaisir la. Oh. que tey yow nga mën a wax ne kat sama xarit bi nga xam ne ba ñu nekkee xale. yaa ngi dégg ba léegi ñoo doon ànd ñooy ànd may remarqué revendiqué amitié de 30 ans. tey suñu doom yi ñoo ay ay suñu doom yi ñoo bokk benn sant. loolu du plaisir. du ma wax la benn. am na ñu ko dund. jël seen ay xarit dugal xarit booboo leen dégagé. ay musuma ko gis man mm-hmm. am na musuma ko gis. daay bu ci yemoon sax mu doy. musuma ko gis. tey tey dégagé boobu noonu. góor ki daf ci ànd. musuma gis loolu man. góor ki daf ci ànd. musuma ko gis. bëri na non man musuma gis loolu. honnêtement ah merci. Oncle Pos am na de. non non Nescafé xoolal. non waxuma ne amul. waaye ak am. non da dama ne waxuma ne amul. dama ne musuma ko gis. d'accord xalaatuma ko. Mm-hmm. mu ne déggal neen xalaatu ko. xanaa du sa xarit. xanaa ah? du sa xarit. ba ci la. ba ci ba ci ngeen bokk borom kër. léegi daal ah xarit amul euh, amitié alors. léegi oncle proche. Ah, que amitié bi pour man. war na rafet rafet boo xam ne nii borom kër moo ko war a gënal borom kër parce que Prospère gis li ngay wax ni dama ko dund ñu ñu nekk ci thème yi dañoo gis cas yu mel noonu ba tàyyi ñu mel nan ñoo xam ne nii seen xarit moo leen si seen sëy dojjit ci sibiti waaw mais at dafa naag am ñoo xam ba tey maa ngi ñëw ah mais waaw kon mën nga maa ah, sama xarit dama gën a may dugg sama jëkkëru jëkkëru xarit tôt ou tard y aura des problèmes non kon non tôt ou tard non c'est pareil que sëyu mbokk loolu moo tax non xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xam nga tax d'accord ak yow. lu xarit bi ngay wax mooy. Mhm. jëkkër ji làqatu di doxaan sa xarit ba takk ko. Mhm. ñun ay sénégalais mhm. mag leen fuuf dëkk ci dëkk bii. waxuma ne xam nañ fi luñ fi xamul waaye ñun duñu ay dof ay magi jëmb lañ. xarit yooyu ngay wax. c'est de fausses amies yoo xam ne. sa jëkkër mooy matadi matadi bu toll ne. jaar si suuf di ko doxaan ba takk ko. d'accord amitié ba taxaw mais dama ne. xarit boo nekkal pendant trente ans mu leer na kii yàllaa ko nattoo mu yéex a sëy mm. mais war naa mën a wax ko mu tëjati na war naa a ko jë ne ko jëlal faama jëlal ndey faatu mm. jëlal nangam jëlal na mën a gis mooy arrangement bi ah. quand ça les arrange dañ koy xoolee angle bu mu leen gën a yombee léegi oncle pros oui euh, góor a dégg mu wax ñu expérience am parrainage polygamie boobu man dëgg naka la war a taxaw taxawaay bu mat sëkk wax hmm. pour euh, c'est vrai que yàllaa ñu ko jagleel mais dafa ànd ak ay conditions hmm. conditions yooyu ñett la muy yan il y a trois choses fondamentales hmm. boo xam ne boo ci ratee perte nga muy yan ak yan da nga koy mën ci xel mën ko ci ndigg mën ko ci poos eh. ñett yooyu bu ci fayir am nga problème mënoo mën a koo yor plusieurs femmes. Hmm. waaw hmm. nga ko mët ci xel ba doo def li père wax sànq. Hmm. lu ma lu ma fanaan ak faama. yéen doo ko kër euh, euh, Ndeye Fatou. te généralement góor sax su melee noonu ca ndoxaan nga ngay xam ne kii du nit ku baax. ndax bu ñëwee aawam la fay amee. waaye loolu yéen ci seen doy waar yéen ay gëm yéen ba dugg. comment tu peux imaginer Fama madame Diop. ku ñu takk nga nekk ñetteel. ma ñëw labat si la. nëbbu ma leen ne yor naa ñaari jabar. Mhm. yaag man yaag man yaag man ba nga ne saraax. Mhm. ma gëstu na ñeenteel mu nekk bu ay di buur sarax. no may fekk ñaari jabar. nëbbu ma leen ne yor naa ñaari jabar. nga koy négocier maa ngi yow ña ca restaurant ña nga ca nii ña nga ca naa. Mhm. bu xotti jotee ma jàpp la korité ma jàpp la ni ma ko mënee nga xotti. tabaski noonu ma jàpp